lii combat Gandia Mané la Gandia Mané en rouge non non non adversaire am moo nekk en rouge Gandia Mané son adversaire nan laa koy waxee Gandia Mané boo daanee ñu am demi-finale yu compliqué ordinateur Ngagne Sène Libidor xamul Libidor kan nga nar a am demi-finale kenn xamul Gandia Fama déggal Gandia Mané jël na ko mu rëcc lan lay def va donner avertissement adversaire ba pare daal di sifflé waat mu nga bu mujj ba ngoon Gandia Mané à droite ku daan diggante Malick Diouf ak Gandia Mané da ngay fekki Libidor fekki Ngagne Sène fekki ordinateur en demi-finale Malick Diouf Malick Diouf Gandia Mané ndeysaan les trois demi-finalistes sont en train de faire leur échauffement dans l'enceinte Siteu wala Gandia Mané ak Malick Diouf arbitre sifflé waat na arbitre sifflé waat na diggante Malick Diouf merci merci maman merci i jega mene a noos ak Gandia Mané jega xa o téléphone um a samna Baboucar Tine mbir ten gisuna a tin na table ale a jega xa téléphone um a samna am na ku téléphone am wad kii mu mu ñëw jël ko ci taal mais day wax numéro yi ba pare voilà i jega mene annonce dimanche fene na garida dimanche fene na garida mana Adrien Senghor a gañof mbaak wa Diofas production organiser na drapeau Ngor Semou mana arène Adrien Senghor da jeg ta invité d'honneur maak e Maodo ley Fatou Adama Diali ten na gim kan mana arrêt Adrien Senghor den fa El Hadj Sène Mbelbouck dimanche fene na garida mene terrain gi ya production Cardi production ten xooytu mene a tegan prix ke 2 a sargala ten koy Ablaye Diop sum fa Edouard Edouard Palmarin Edouard Palmarin fa Ablaye Diop sum ten ya a sargala meke dimanche a kar 2 millions le décembre mana arène Adrien Senghor Abdou waxal ten na xooyta maaga a tegan piir ke un million un million Ndeye Fatou fo Doudou kan na ndef ka maaga te jeg invité fa maak koy Tokor Ousmane Tokor Ousmane Diofior ten ref invité fa maak fe na gar ka mana arène Adrien Senghor mana ñoonana cosaan a paax un million jega maaga un million jega maaga Souley Seng ten na xooya piir ke Souley Seng mana arène Adrien Senghor le 4 décembre arène Adrien Senghor Souley Seng bo xaye i mbadidanga no annonce ke bo xaye le 3 décembre a ref ka samedi mana Passy a teganayo prix ke 1 million momof a mbayang na ndef ka maaga voilà kene ref annonce ke i ndawna meen bo xaye wetanda oxe téléphone um a damna ta gara xotidin na table merci Mbayang demi-finale se prépare Ngagne Sène Ngagne Sène Ablaye Wilane Ndoye Libidor gagne sen prépare première demi-finale deuxième demi-finale ordinateur fogena maaf kan combat nene nder Elimane fo Malick Diouf nder Gadiamane fo Malick Diouf merci animation e lorando nome katimbere pour moi Madresma.